sëñ bi Cheikh Sadibou Ndiaye ñu ngi lay nuyu bu baax. maa ngi leen di fay. yow spécialiste nga maanaam sa xam-xam dafa màcc ci wàllub relation internationale daañu waxee sax mbir moomu ak uh, fi Sénégal toll tey ndaxte njiitu réew mi Macky Sall moom moo jiite léegi Union africaine. ban dayoo la am boobu lee toog. waaw jiitoo jiite Union africaine nag am na dayo bu rëy ci Sénégal ndax dina permettre ñu gis ni Sénégal dafa di nekk dëkk boo xam ne mu ngi màgg sur le plan international dañ naan wax sax naan dëkk bu ndaw la mais une grande diplomatie depuis Senghor ba tey gis nañ Sénégal dafa yàgg am diplomatie boo xam ne dafa daan activé wu un peu partout dans le monde ba ci Ablaye Wade gis nañ problème yi daan am dans la sous-région moom daanul sax xaar ko woo da daan jël bâton de pèlerin dugg ci dëkk yi jéem fa indi ay solution gisoon nañ euh, kii problème bi amoon Guinée euh, ak Dadis Camara Abdoulaye Wade xaarul kenn dafa a parce que gis nañu union africaine économiquement union européenne da koy financé États-Unis da koy financé te Olof Ndiaye dafa ni ci la abal ay bët moo lay wan fi ngay xool. Hmm. donc ñu gis ne union africaine benn indépendance boobu ñu doon xaar ba tey daka desee am. donc moo tax ñuy laajte présidence union africaine bi mbaa dina am sens te sens bëggoon mu am mooy Macky Sall comme que moo ko léegi na def lépp ba union africaine mën a indépendance ci secteur euh, yi ci wàllum développement économique surtout économique ak industriel parce que Afrique boo xam ne. da ko am diggante Occident ak diggante Asie te retard boobu bu ko rattrapé wul vraiment continent bu nar a metti lay doon ndax continent boo xam ne deux milliards de personnes ñoo fi nar a yeewoo d'ici quelques années donc dafa di position boo xam ne Union africaine da ko war a défendre pas nekk rek topp ci partenaires ñu lay sant ak di la wax ci xool ak ci nga jëm non non dañu war dafa war a défendre politique boo xam ne politique de souveraineté wu Union africaine la loolu daal askan yëpp yi nekk ci Afrique di xaar ci moom moo tax ñu ne Union africaine dëgg la Euh, union bu am solo la baax na mais tamit mbaa suñu chef d'état yi dinañ jël seen responsabilité am taxawaay boo xam ne dinañ ko taxaw euh, avec euh, la présidence de Macky pour mu mën ñu défendre au niveau au niveau international kon mën nañu jàpp ni loolu mooy priorité bi rax ci dolli xëy na conflit yi ñuy dund waaw ak conflit yi ñuy dund loolu mooy priorité bi parce que gis nañu conflit yi dafa bëri gis nga boo jëlee Afrique du Nord gannaaw bi amoon ba léegi daanu loolu dafa déstabiliser Sahel te gis nañ yeneen dëkk yu mel ni comme Maroc ak Algérie y a des problèmes diplomatiques nga ñëw euh, Mali gis nga coup d'état Guinée coup d'état Burkina coup d'état nga dem fële Éthiopie problème yi fa am ah, Tigré xeex ba fa déclenché wu Afrique centrale centre Afrique maanaam gis nañ Touadéra gouvernance am ak présence militaire russe yi nga xam ne ñoo koy jàppale pour mu indiwaat sécurité maanaam Afrique dafa am théâtre d'opération yu bëri ba tey moo ngi taxaw Congo gis nañ problème yi fa am ak élection yi ñu jëm nii en deux Euh, problème yoola yoo xam ne commencé na jaaxal Union africaine donc yooyu yëpp dañ cee war a indi solution Union africaine daf ci war jël ay matuwaay yu taxaw pour gérer ko normalement parce que boo jëlee exemple conflit bi am diggante Ukraine ak Russie mais yaa ngi Union européenne daf ci am taxawaay bu ma tëkk mhm. ni conflit bi am lii moo war am wala bu conflit naree am dinañ def ay daan dinañ def lii mais Afrique saa ñu ci ñëwee bu fi problème des fois pour jéem a régler suñu problème yooyu te loolu dafa di loo xam ne du yoon war nañ toll foo xam ne dañuy am suñu souveraineté dans tous les domaines, que ça soit diplomatique, que ça soit euh, économique, que ça soit vraiment même militaire. Mhm. ñu gis ni kon euh, présidence bu njiitu réew mi Macky Sall ndax mën nañoo euh, jàpp ni mën na jur yaakaar ci Afrique ndax bu ñu méngalee Sénégal ak yeneen dëkk yi dañuy jàpp ni am na benn stabilité alternance démocratique. waa présidence bu Macky Sall am nañ ci yaakaar au niveau de l'Union africaine mais comme ni ma ko waxee si njëlbeen Union africaine ba tey dafa di bateau boo xam ne Macky Sall moo na a nekk capitaine bi mais dañu gis ni toujours dafa am ki jox kiy joxe carburant bi ci bato bi daal daa mel ni ay tubaab lañ. Hmm. te loolu nag dañu war a dakk moo tax ñun espoir bi ñu bëgg ak li ñu bëgg Macky Sall défendre ko par rapport à l'Union africaine moo di maanaam souveraineté wu diplomatique ak économique ak industrielle ak pàcc militaire maanaam euh, pays africain il est temps que euh, il est temps que Afrique toll ci euh, jamono yoo xam ne dañuy changer yi fi am suñu bopp pas nit jóge fële ñëw di ñu imposer soit ay vision wala soit ay résolution yoo xam ne ONU lañ koy jaarale gis nañ Libye li ko déstabiliser responsabilité protéger la euh, communauté internationale jaarale conseil de sécurité ñëw tëb union africaine jàllale loolu dem songu Libye pourtant moom moo dugg euh, euh, en Afrique daaneel le colonel Kadhafi te gis nañ ni loolu fragilité wu union africaine la parce que mm. autant nga xam ne Europe la war a yem organisation traité des nations unies Europe la war a yem moo ko fa génn ñu dem ba mu ñëw Afrique di daanal ay chef d'état donc loolu problème la mhm. donc yooyu yëpp dafa di ay problème yoo xam ne yu euh, ñuy xaar Macky Sall indi ci solution la te espoir la parce que euh, xam nañ moom rapport yi mu am ak pays occidentaux yi vraiment il est bien respecté mais nag euh, taxul ni wax dëgg yàlla dina dina gëm nañ ni daal dina défendre daal union africaine. au niveau mën na sukkandiku ci modèle de stabilité ak euh, alternance démocratique bi Sénégal am. waaw mën nañ ci sukkandiku mais tamit modèle de stabilité ak alternance démocratique boobu ñuy waxal Sénégal lu am la. mais tamit du ñun kase yeneen dëkk yi am nañ ko ñu ci mel ni Ghana ak d'autres pays j'en passe ñoo xam ne ñoo ngi ci modèle de stabilité bu baax ñoo xam ne ñoo ngi jëm kanam ndànk-ndànk mais kaawu Sénégal tamit dafa di kaa boo xam ne dafa extraordinaire ndax depuis ba tey vraiment on est un pays stable mais tamit nañ bàyyi di référé ci wax yooyu ñu occidentaux yi di wax naan way Afrique yeneen dëkk yi stable ñu nekk ñoo stable Afrique dëkk yi stable nañ dëkk yaa ngi jëm kanam terminologie européenne boobu yooyu yëpp pour euh, diviser pays africains yi la pour indi problème diggante suñu chef d'État yi la mais ñun ñëpp nañ gëm ni stabilité boobu mun nañ ko fondeel suñu bopp Euh, nga xam ne Afrique day gën a mën jëm kanam. Euh, présidence euh, bu Sénégal nag mu ngay amee ci jamono yi nga xamante ne dañoo gis ni coup d'état yi mu ngi bëri ci kon su région bi boo ñëwee ci Sénégal mën nañ ci taftal sax dund gu métti gi lépp di yokk crise bi grève yi foo laal mu ngay métti ndax da nga jàpp ni njiitu réew mi Macky Sall mu ngi dund ak pression. waaw ah njiitu réew mi Macky Sall moom xëy na dina dund ak pression boobu mais yaakaar am nañ yaakaar ni équipe am dañ ko mu gérer pression boobu pandémie bi Covid 19 bi muy dugg ci dafa frappé économiquement Sénégal ba vraiment lu perte économique bu bëri daf ñu dal. Hmm. gannaaw loolu ay Union européenne ak France nga xam ne moo moo leen poussé ñu jël ay sanctions daan ko Mali. CEDEAO précité wu jël sanction yooyu moom tamit appliqué ko ci Mali moom ak UEMOA te loolu dadul yoon te gis nañ ni sanction yooyu sonalul Union européenne sonalul France ñun Sénégal la sonal ndax Sénégal ak Mali échange économique yi chaque an ça tourne autour de cinq cent à six cent milliards de francs CFA donc alal jooju yëpp Sénégal nekk ko perte ci ay sanctions yoo xam ne du ay intérêt wam Sénégal dogal moo daan wax naan état amul xarit hmm. état ay intérêt la doon ñoo ngi am mille trois cent camions yuy génne Sénégal chaque jour di dugg Mali corridor boobu Ablaye Wade moo ko defaroon diggante Dakar ak ko def tout ba déplacer fret malien bi de d'Abidjan à à Dakar ubbi corridor bi Dakar ko ba mu yaatu camion malien di dugg di génn économiquement muy rapporté Sénégal. Mhm. te actuellement gis nañ ni entreprise bu bëri Sénégal fii dañu taxaw port autonome de Dakar sax da ngay gis ni activité économique dafa gën a wàññeeku donc gis nañ ni ñoo ci nar a perte perte moo tax équipe bu Macky Sall war nañ waxtaanaat war a xalaataat nan lañu mën yëkkatiwee sanction yooyu te sanction yooyu ñu teg Mali amul benn sens parce que hmm. sanctionné wu ñu Mali de ñun suñu bopp lañ sanctionné dëgg la autorité malienne yi dinañ yëg sanction yi Mali dina yëg sanction yi dina métti ci moom mais si ñun la nara gën a métti hmm. parce que ñoo si nar a perte économiquement suñu daara yi dina flambé prix yi gis ngeen prix ngi yokk fan yi hmm. gën a yokk yooyu yëpp dafa di aspect yoo xam ne mooy li ma tàmbali wax rek naan Afrique de boo laalee benn dëkk foog ni loolu du répercuté wu ci beneen dëkk bi da ngay nax sa bopp ñun ñëpp ñoo tolloo ñoo yem. Hmm. amul ay Sénégal am non amul ay Sénégal gën a avancé moom moo gën a moo tane moo ñun on est on est tous daf bañ ba ñun ay pays pauvres la ñuy woowee. Hmm. donc on est tous des pays ñoo yem niveau de développement bi c'est la même chose. Hmm. donc tant que yaa ngi laal dëkk bii foog ni dëkk bee du ko yëg amul ñun ñëpp ko koy yëg. bu ko jiitu ñii fi ñoom buñ ko yëgul askan wi dinañ ko yëg. donc économiquement perte boobu ñu nar am Sénégal dafa di loo xam ne il faut gouvernement Sénégal revenir à la raison bañ a topp euh, vraiment intérêt wu beneen dëkk pour appliquer sanction yooyu. parce que hmm. dañ naan CEDEAO CEDEAO mais xam nañ ni CEDEAO bi ay Côte d'Ivoire ak Sénégal ñooñu pratiquement ñooy levier économique yi te Côte d'Ivoire ak Sénégal gis nañ ni mu demee rapport ñu am ak benn grande superpuissance moo tax ñu bëgg jël sanction yooyu forcé ko appliqué ko au Mali alors que daf ñuy gaañ ñun sénégalais. Hmm. te intelligemment tamit président waroon na am beneen lecture. parce que am nañ am na ay non yu amul ci suuf parce que ñoo ngi soupçonné ni Côte d'Ivoire moo ngi pour ñu jëntiwaat corridor. Euh, Abidjan ak ak ak ak Bamako bi loolu loolu tam lu lu lu bàyyi xel la daal. Mhm. néew ma am na néew ma amul mais lu jar a bàyyi xel la. Mhm. donc ñun bu ñu dem aveuglément nañ xoolaale suñu intérêt. léegi beneen coïncidence mooy euh, présidence bu Sénégal ci bopp Union africaine dafay euh, tombe euh, ak ndaje muy sommet bi nga xamante ne UA ak Union européenne war nañ ko amal ci kon weeru février bi ñu nekk kon diggante fukki fan ak juróom-ñaar jàpp fukki fan ak juróom-ñett ca Bruxelles lan la ñu Euh, ci kon taxawaay bi nga xamante ne Afrique dina ko am ci ndaje boobu. waaw taxawaayu Afrique bi ñu waroon xaar man ci man de si njëlbeen la ko président Macky Sall waroon wane parce que Union européenne dañu décidé woon ni sommet boobu dañu décidé sax ni sommet boobu Guinée du ñëw Mali du ñëw voilà ak Burkina ndax dafa ay coup d'état man ci man foofu la Union africaine waroon wane boppam il n'est pas question ñu déplacé wu dem si sommet boo xam ne euh, dañoo exclure ay état na état yooyu sax am ay dictateur na état yooyu am ay coup d'état mais dañu waroon teew bu ñu mënul teew ñoom ñu jiite état yooyu seen ay diplomate ñëw lu ci mel ni seen ay ministre affaires étrangères bu Mali Abdoulaye Diop qui est extrêmement brillant mais yeneen dëkku Afrique yooyu di dem am na fi dëkk yoo xam ne président yi ay trois mandats lañ def. Mhm. am dëkk yoo xam ne quarante ans de pouvoir la fa président yi def pourtant te teew bi Union européenne nangu na ñooñu pour ñu ñëw te man ñooñu pour man ñooñoo raw ay dictateur ñooñu seen dëkk yi ñoo ngi fay noot ay ñu ngi koy def naka sudul noonu te teewul Union européenne nangul na leen ñëw donc man pour man Union africaine foofu la woon njëkk wane boppam présidence Macky Sall pour man côté boobu lañ koy xaar maanaam mu wane ni on doit aller d'égal à égal on doit faire jeu égal. Mhm. kon kenn war a suñu dicté lan la ñuy def. Mhm. ñu ñoo war jël suñu indépendance boobu dans tous les secteurs dans les secteurs décisionnels waruñu toogati di xaar kenn. Euh, exactement comme nag ci géopolitique la ñuy wax waaye actualité bi daanaka dibéer ba léegi mooy ndam li euh, gaynde Sénégal am ci wàllu football ci Coupe d'Afrique bi doon xew ca Cameroun ci loolu euh, lan nga jàpp ni war na ko am ci njeexintal ci wàllu politique ak diplomatie. waaw parce que dañuy xam nga diplomatie du sport dafa am géopolitique du sport mooy ni ma ko waxee c'est pas parce que gagné nañ noonu rek gagné bi Sénégal fii la yem loolu dalay may répercussion et au niveau continental parce que euh, victoire bi partout dans le monde c'est célébré te état yi dañu am tendance di rivaliser ba ci sport parce que boo gisee Jeux olympiques état yi di fa daje dajewuñ fa noonu pour ñëw rek daw cent mètres ak deux cent de dañuy daje pour rivaliser ku nekk di wane man samay athlète dafa nekk en bonne santé ndax sama système sanitaire bu dëkk dafa baax sama athlète dafa taxaw physiquement ndax sama dëkk condition physique yi conditions yi dañ ko réunir pour doomu aadama bu fa juddu physiquement nga nga nga am kàttan hmm. donc yooyu noonu yëpp dafa di ay comp ay ay concurrence yoo xam ne état dañ koy defante seen bii moo tax nag loolu dafa lii day permettre Sénégal ñëpp xam ne Sénégal dëkku football la ndaw dëkk yi dañuy euh, ndaw yi fi nekk fii Sénégal dañuy football dañuy sport taxaw compétent nañ ci domaine yëpp taxaw nañ ci domaine yëpp loolu dafa di loo xam ne c'est extrêmement intéressant et extrêmement bon pour le compte euh, pour pour le Sénégal au niveau international aussi au niveau continental donc loolu dañ koy rafetlu léegi nag ban euh, njëriñ la ndam li war a am ci ñun naka lañ ko mën a jëfandikoo ngir Sénégal ci boppam yëpp war cee eh, gis boppam. waaw ndam li nag ni ko war a jëfandikoo mooy buñ ci eh, eh, buñ ci rax politique. maanaam nañ xam ni ndam li ndamu ñëpp la du ndamu ma Masamba wala ndamu demba hmm. wala ndamu opposition wala ndamu pouvoir ndam li ndamu képp kuy sénégalais la ak képp kuy africain. parce que ndam li dafa wane lenn entraîneur bi ko jël nit ku ñuul la. te ñun d'habitude dañoo tàmmoon ñun bu ñu waxee rek ñu ne la nit ku ñuul amul xel nañ jëli tubaab bi. Mm-hmm. mais yàlla def euh, nit ku ñuul bu tudd Aliou Cissé moo njëkk indi coupe d'Afrique des nations ci histoire Sénégal te loolu du dañ ala kulli mm-hmm. donc loolu dañ ko war a jàngee jàngat jëlee jàngat boo xam ne dañuy wane ni ñun dañu gëm suñu bopp te gëm suñu bopp boobu moo ñuy permettre ñu gën a mën a jëm kanam ci yeneen secteurs yëpp lii dina tax sax yeneen secteur yi ñu war a gën a mën a am confiance. jox ko ay nit yu ñuul tey jii moom bu fi jógee woon coach boobu tey dañu waroon jëlaat beneen coach boo xam ne sénégalais la joxaat ko équipe nationale boobu ah non loolu jàngat la bu may def boog maanaam. Mhm. su wane rek dañoo war a gëm suñu bopp. donc mooy li ma wax rek coupe bi coupe ñëpp la coupe képp kuy sénégalais la. képp kuy africain. yow ngay spécialiste kon ci wàllub euh, lëkkaloo muy relation internationale Cheikh Sadibou Ndiaye ñu ngi lay gërëm bu baax. maa